ñoo ngi leen di jaajëfal comme niñ koy defee at bu nekk dañoo ñëw tey indi suñu participation ci organisation gàmmu bi fii nii ci Kaolack comme niñ koy defee at bu nekk depuis plus de trois ans donc ñëpp uppul kenn ni gàmmu doon na ci yi nga xam ni événement religieux ñu gën a ràññee fii ci réew mi muy màggal ganale àdduna gën ci mbindeef muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donc lu ni mel yemul fii rek fii ci Kaolack ndax dañ koy def ci yeneen événement religieux

ñu am ay jumtukaay yoo xamante ni mooy empêcher virus bi mu circuler fii ci askan bi ndax gàmmu wi day doon rassemblement ay nit donc moom moo tax ñu indi ko pour stopper euh, circulation virus bi ba pare di insité nit ñi ñu respecter mesures barrières yi ak liñ liñ leen sant ak digal autorité sanitaires yi wante tamit ñu ñëw si suñu ndigalu directeur général monsieur Laurent Leclerc sàkku ñaan xalif général des Niassène ñu ñu mu ñaanal ñu Auchan gën a law gën a nekk am naataange Nous avons am naataange Natangé, réew la askan bi la ndax ñoo plus de 1500 collaborateurs sénégalais Nous avons plus de 500 fournisseurs sénégalais donc ce qui est mu nekk si avons mi day sukkali gox bi mu nekk donc loolu nous, fi doon suñu des sacs ñu ñëw di seen des di ñaanal vitamines. bi tamit yan bi yombu loolu mu fi te pour Sénégal.

Euh, li nga wax fii ci Auchan ci emploi yu bëri yooyu ñu fii ñi loolu yëpp bon dolli ngeen Sénégal yombalal ngeen ko dépassam yombalal ngeen ko ay ay euh, facture am loolu yëpp ndimbal la boo xam ne dafa dellu ci Sénégalais yi te Sénégal intelligence a fii xam-xam a fii waaye xëy na luñ téewagul dëgg-dëgg mooy am-am am moom lañ amagul dëgg-dëgg mais suñ ko amee amul dara loo xam ne. mun nañu amul dar lu ñu mën a baare pour ñu tabax suñu dëkk réew tabax boo xam ne tabax bu bu dëggu la tabax boo xam ne tabaxu réew lay doon yal na yàlla dimbale leen ci ci seen liggéey barkeel ko ba mu daj Sénégal yëpp euh, euh, daj daj daj mboolem goxi Sénégal yi euh, daj kaw ñëw Kaolack itam ndax ñëw ñëw itam ndax Kaolack soxla nañ ñoom tamit ay am employé sax bëgg nañoo liggéey. Euh, loo xam ne dafay ubbi liggéey rek dëgg-dëgg loolu mënuñoo am lu dul wax ne bisimilah agsi leen ci jàmm ñaanal leen yàlla yàlla defal leen tawfiq ngeen am barke ci seen liggéey ngeen kontaan ci seen liggéey parce que booy liggéeyal nit njëkk kontaan rek mooy liggéey ba àgg na fu mu war a àgg ndax bu àggut fu mu war a àgg du ngeen kontaan da ngeen a feesal kontaan rek mais seen biir kontaanut yàlla seen biir kontaan ngeen xam ne defal ngeen seen réew loo xam ne daf fiy des. Hmm? nekk njëriñam nekk njëriñu avenir bi ñëw si yépp te loo gis nag ci loxoy doomi réew rek lay bàyyeekoo seen loxo yéen xale yi seen xam-xam seen expérience seen kattan seen i gént foofu rek la développement di bàyyeekoo hmm? yal na leen ci yàlla taxaw yal leen ci yàlla dimbale ya rasulullah kontaan nañ ci gis leen ci gàmmu gi yàlla fay leen ci may ñu ci yoolu yonent yëpp yàlla may barke yonent